Casamance jàkkaarloo ak presse bi kon dañuy daan dugg ci question yi comme guddi na nuyoo doon jox xob ñu doon tàmb ci question yi émission ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi laa ñu lay seetaan. bisimilah bisimilah. ah gannaaw moom sant yàlla di julli Seydina Mohamed maa ngi sant sama ñaari waajur bu baax. waaw di la ñaanal yàlla fu ñu jógee gënal leen fu ñu jëm. ak sama turandoo tamit maa ngi koy ñaanal yàlla fu mu jógee gënal ko fu mu jëm waaw. nuyu waa Pikine maa ngi nuyu waa Pikine yëpp. waa Pikine ginnaaw raay maa leen sant bu baax sama gaay yi maa leen sant bu baax a baax waaw bëgg ñëpp daal bii mooy sa grand premier grand combat waaw nan nga waajee dimanche sa digganteeg Boy Diouf incha rabbi jàpp daan jàpp daan rek laa xam xaw ma leneen incha ndax xam nga ki ngay dajel non non soxlawu xam waaw waaw premier diisul ci yow non diisul ci man dafa jot combat la comme combat bi nga dafa jot inshallah ma wone sama bop te dimanche inshallah dina leer inshallah tay nga woote peu press population ginnaaw la yëpp génn ànd ak yow li lan lay def ci yow sa li mom sas la sas la inshallah te inshallah te dimanche barki seigne bama lepp dina leer dimanche ban Eumeu Junior lan bëgg gis Eumeu Junior bi taxaw bu bes tak. xale laa de barki sëñ Bamba xale bu ndaw te incha allah dimanche damay ñëw jàpp daan jàpp daan laa xam xaw ma leneen. amul leneen. boo juuf sa adversaire nekk mbër mu ñeme xeex ba pare mbapat comme yow ndax yaa ngi calculé xeex bi sa diggante ak moom. tàppel la day yooru. day day yooru yooru kat la. yooru kat la waaye naa ko duma ba mu tëdd. yooru kat la day yooru xam naa ko bu baax. yooru kat la rek. mais bu taxawé samp jaaga nak su taxawé ñu xex laalo 10 minutes 10 minutes demewul lolu ñu xex 10 minutes lolu ko def nek yi wala lan la 10 minutes paré na pour xex ko est ce que ñu la wara tax non non non non barki seigne bama dama entraîner ba jeex tak ni xex na gay essane dama wo kongu wa parce que combat bi dañ ci gis nga melni ko wañi poids lan la torop du taxu lolu liggéey la rek da nga bëgg combat bi dem à l'usure wala non non du yag inshallah du yag su nexe suñu borom damay ñew def lu ma doon def yalla may man dam inshallah mba xam nga ni mbeur mo am sañ-sañ ngay dajal. Boy ah. peut-être man xawmako sax ni ni rek la ko xamee ni ni ni ni rek. lan ngay wax ci côté jappalé bi ndax gis nañ ni sank ku melni professeur Daouda Dia ñëw fi ma jox ko ñetti bolok mu ne ma jënd na ko ci saasi ndax bëggaan nga ñeneen ñu la jappalé wa ndax mobilisation soxla ko ko lool dimanche. waaw inshallah rabbi 10 bolok la bëgg wala 15 bolok inshallah ñu fessel seen bu mu fess dell. waaw daan ñeu fédé ko fi Pikine ginaaw ray demb Vieux def la ma vidéo jëmele ko ci Anta Baba Ngor ko am ñeneen lan ngay autorité yooyu tam ñu jappalé ndax soxla nga jappalé aussi. di wo ñep may wo ñep ñaar 6 Ciss maa wo wat woowaat Ablaye Timbo ñoom ñëpp Ablaye jóob tamit Ibou Laye ñoom ñëpp fàttewuma kenn maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm ak suñu yaay ak suñu yaay Daba Cissé mais Daba maa koy sant di sant sama mag Yves Niang maa ngi koy sant bu baax a baax di sant gaa yëpp Ndey Soxna Cissé tamit maa ngi koy sant bu baax a baax taxaw na ma Ndey Diop Ndey Diop taxaw ma bu ba am question foofu. ba moo dugal balaa moo gën a. am question mbër boo xam ne tey xamoo ko. bëreeg mbër boo xam ni xamoo ko. est-ce que loolu risque amu ci. non non loolu du risque. non gis ni combat bi dafa mel ni liggéey physique bu bari. bu baax dañ leen ni sa dafa gaaw wala dañ leen ni dafa indi doole wala lan la lan moo tax nga liggéey physique. non liggéey la rek. liggéey gars la ay ñoom Zoro Alaaji Sey moo kës Diallo tamit Diallo Escaf maa ngi koy sant bu baax ak Papa fàttewu ma leen waa Escaf yëpp maa ngi leen di waaw mooy lool ak sama gars yi. est-ce que xam nga la la mën def tay ñu def barki seigne ba mu combat sama bakkan la spek sama bakkan daan rek daan ba dé suñu bakkan ñop rob rob rob rob rob tous nabilan nabilan amul leneen ya mën ya doom né am nañ premier grand combat mba xam nga ni warako ñak non non non non non waruma ñak xam nga ni la koy may xamna lu ma koy may te ñu ngi si bu baax. waaw. ñi lay nuyu. mu melni bi nga dugg see. ama junior bi nga dugg see bi nga défé tour enceinte bi da nga and confiance total da nga bakku ba si yàgg jékki da nga am doolé entraînement mo moo wala confiance bi wala nga gëm ni bo jappé sa da nga koy taxañ mu jeex. barke que mama li ma liggéey la rek eh, ay coono gu métti laa ay coono coono bu met laa daj moo tax ma wóolu sama bopp am doole bu wér waaw tey ngay bërëg loo xamante ne grand combat la te Eumeu Junior ku ko xam day xeex mën nañ xaar Eumeu Sène xeex moom dugg ci gardam soo ko daan wala nga ñëw àndaame bëre bi bëre la dañuy bëre dañuy xeex damay bëre ak moom damay xeexak moom ñaar yëpp dama koy def ak moom damay xeex xeex bu tar bëreeg moom jàpp ko daan ko. lu tax nga ni Eumeu Junior bu bees bu bees la tamit gisoo lii gisoo lii. ah ate wooteel. gisoo lii lii caaxa. jërëjëf Seydina jërëjëf ñu gis ñu gis ne Pikine Euh, sa génération yi ngay bërandool ñoom ñëpp ñëw gis nañ fi ku mel ne Naaru Sogas Jadli gis nga ku mel ne Sokk ak Jacob sa diggante ak ñoom ndax dañuy faral di gis ci mag ñi ñu ne 200 pour cent bi dafa xaw am takkaloo mais fii dañoo gis yéen ñëpp ngeen manko relation boobu yéen lan la. yàlla na yàlla. dëgg la ñun moom wax dëgg yàlla gars yi moom fii moom bilaay 200 mi ngi koy wax 200 pour cent am na fi ñun. ñun ñun bokk jeunesse bi jeunesse bi ay ñoom Jacob gaa yëpp ñoom Pogola gaa yëpp presse xam nga ay ñoom Baptiste Alsan Bale Zoro Junior tas yaakaar gaa yëpp Darso Darso sama kës yu fàttewu ma la sama doom ne ñoom Njaay ñëpp gaa yëpp waaw xàccandoo dóorandoo xàccandoo dóorandoo Pikine moo kës waaw moo kës moo kës fàttewu ma ko président maa lay ñëng maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di woo waa Pikine waa ginnaaw raay maa leen woo bu baax waa Tëngéej fàttewu ma leen waa Tëngéej sama kër maam ma fi yaa Gàmbi gi waa Gàmbi maa ngi leen di woo sama gars yi nekk Gàmbi yëpp d'accord mais lu ñu yóbbante ma question mooy seen digganteeg professeur Daouda Ndiaye ñëw na ma jox ko ñetti bolok mu ne dama koy jënd ngir Eumeu Junior dama bëgg a jàpp ci bis sa digganteeg autorité yooyu ah wax dëgg yàlla moom wax dëgg yàlla borom baax la. waaw borom baax la. waaw jàppale na ma bu baax nag. jàppale na ma bu baax a baax maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. combat bi ndax combat bi ndax déggante nga jég ëmb ndey mbili gi bi nga tuddee sa bopp. waaw kontaan ngeen ci. démb rek ñu ngi doon déggante. lan nga la ci conseil. ah incha lool loolu woon fa li <laughs> nga wax la woon fa woon rek. loolu la ma conseillé. Ah. wooteel. maa ngi woo waa Pikine ginnaaw waa Medina sama gars yi nekk foofu. mafia Gambie bi da ngeen teew gisaguma leen waaw. mafia tamit suuf fi suus. sama gars yi maa ngi leen sant di leen dëggal baax. fan si club Amathé maa leen sant. ay ñoom Pa Moussa gars yëpp ñoom Ibou Yaa ñoom ñëpp sonn si bu baax Modou Gueye maa ngi koy sant bu baax a baax Modou Gueye. Modou Gueye ñëwagul mais jàpp si nag waaw professeur Daouda Ndiaye maa ngi koy sant bu baax a baax ma fiyaa cag-cag bi ma a cag-cag bi fàttewuma leen maa ngi leen di woo di woo ñëpp waa Pikine kannasu waa kannasu tamit waa kannasu famille sama gars yi ma fi xalaat ñàkk ma fi xalaat ñàkk maa leen di woo di woo ñëpp di bëggee ñëpp daal incha allah dimanche ñu ñëw feesal stade ma jàpp ma jàpp waa ji defal ko lan ngay yóbbante sa adversaire loo koy wax mi ngi lay seetaan jàmm ak salaam rek naam jàmm rek ba dimanche incha allah mu ñëw ma duma ko daan ko. incha allah jërëjëf